salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, Saïd ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di kontaan bu baax ci suñu télé bi macha allah euh, tey ñu ngi ci daara ji fii di daara Ahmed Sakhir Lo Boune Euh, nga xam ni ki jiite daara ji mooy Mouhamad euh, Baara Niang ci daara ji la ñu jàngee yàlla dogal fi lañ mokkale alxuraan mu nekk bis boo xam ne bisub lislaam la euh, bisub alxuraan la mbégte la bis boo xam ni dañ ciy dajale xale yi nga xam ne ñoo mokkal alxuraan di leen ci teral mu nekk bis boo xam ne ku fi ñëw da xam ne lislaam rek mooy dëgg alxuraan rek mooy dëgg xol yi tooy imaan yi yokku Euh, confiance yokkuwaat ñu xam ne alquran ba léegi la mu doon def mi ngi koy def ci jinne yi doon wax naan inna samina quranan euh, waaw inna samina quranan euh, ajaba ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada ba jinne jommee ci alquran jaaxal leen tey jiit alxuraan a ngi def li nga xam ne mooy rôlam mu nekk loo xam ne jullit ñëpp seen xol da ci sedd ci bis bu mag bi bésub alxuraan bi bés bi nga xam ne ci lañuy ñuy terale doomu jullit ñi nga xam ne ñoo ko euh, téere yàlla bi. Euh, yu bari innovation yu bëree bëri bari nga gis ni ñu ngi koy lënkale ak li nga xam ne mooy li nit ñi di xaar ci ñoom mooy gën a valoriser yëf waaye gën ko def mu gën a méngoo ak jamono macha allah ndax soo xale xoolee xale yi discours yi ñu fiy jàng di ko def ci français. jàng anglais jàng bépp langue boo xam ne war nañ koo jàng nga xam dinañ nekk ci daara ji jàngal Alxuraan ñu yar leen fi waaye bu ñu génnee maanaam seen jamono du leen raw benn yoon innovation yu rëy rëy rëy macha allah gis naa fi gis naa tam xale yi nga xam ñi ngi nekkoon ci école bi di jàng biñ demee di def bac ñoom ñëpp dañoo am dañoo at mi ñoom ñëpp macha allah am nañu bac ci daara ji lañu jàngee ba mokkal jàngee fii français bi dem ci école bi nga xam ne gouvernement bi macha allah dafa reconnaître seen programme ñu dem ñoom ñëpp yàlla dogal ñu am bac mu nekk loo xam ne euh, macha allah dañuy wax gàcce nga alaama daara Ahmed Sakhir bi nekk ci buur macha allah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ana ismi Mouhamed Fathi Aïd al mudir al iqlimi li maktab al nadwa al alamiya li shabab al islami fi Dakar. واليوم شرفت بالحضور في حفل ختام معهد الشيخ الجليل أحمد صغير لو لتخريج دفعة جديدة من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى وجئت باسمي وباسم زملائي في المكتب نيابة عن المكتب الرئيسي في الرياض لنقوي يعني ظهور هذا المعهد الكريم ونشكرهم على ما يبذلون من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في السنغال وعلى الحفاظ على أبناء السنغال وتحفظهم كتاب الله والعمل على الرقي بهم في كل المجالات يعني أهمها مجال القرآن الكريم والأخلاق والعلوم فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وجعل جهدهم جهدا مشكورا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم